patriarcat parce que thème bi aussi dañoo ne ce patriarcat qui dérange. waaw kilifteef gi góor ñi yor daal. moo leen sonal huit huit. waaw sonal nañu mais xam nga tubaab aussi dafa xaw a euh, nuancé soo ne ki dérange kan lay déranger. les féministes le combat féministe mu ngi nii. non xam nga féministe c'est vrai c'est un terme man mais par contre. li mu wund dafa xaw a mhm. péjoratif ah, moo tax man terme boobu sawaru sawaruma ci torop mais pour toujours en revenir au patriarcat sànq euh, doyen wax na fi mais ban moment la ñun suñu société africaine yi tombé dans le patriarcat ah, parce, ah, parce que soo xoolee nos, nos sociétés à la base c'est oui. des sociétés matriarcales c'est vrai qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'histoire mhm. ba femme bi nga xamante ni moom moo nekkoon devant de la scène mhm. même yow su nekkee dangaa nekk euh, taaw ci kër nekk jigéen yow yow yaa yow yaay la grande royale yaay gérer mm. mm. donte sax góor ñaa ngi ci sa fratrie mais dañoo dem ba benn moment jigéen même soo nekkee taaw ci kër dañ lay teggi teg fële jël sa frère bu la bi topp ci yow parce que góor la léegi ñun suñu société yooyu lan moo ko indi soo ko laajee nit yi am ñu ne diine yi ñoo ko indi mm. à tort ou à raison mm-hmm. kenn xamul donc patriarcat boobu pour man war nañ ko xoolaat mais du loo xamante ni lu insurmontable la wala daf ñoo war a tiital parce que góor ñi seen jëmu bopp ñun kese waruñu koo xeex parce que man damay woo góor ñi nga xamante ni dañoo am masculinité positive ñu ñëw fekk si ñu si parce que ñoom suñu ci fekk see. du ñun rek ñooy gagné de ubbi beneen brèche de ay masculinité rek ñoo ciy gagné de ñun jigéen ñi. su patriarcat bi. masculinité positive. dañuy waaw quest que cela signifie. mais mais la masculinité positive mooy góor ñi nga xamante ni. dañoo xam importance su jigéen. xam gëddu jigéen xam jigéen ne war na mën a aussi. am même responsabilité. que góor gis nga man seen ah? saison tamit lan mooy masculinité positive. oui mais ça c'est des termes de nature non non mais ay góor a ko créé c'est des termes qui la nature de l'homme avec non non longtemps d'ailleurs c'est pas péjoratif uh-huh. cest juste pour dire que ñun jigéen ñi si suñuy wàllu li li ñuy li si il faut ñu affaire boobu ñu teg ko mais dire ça c'est comme si l'homme avec petit H. dafa mel ni il est de nature xam nga lu tax ñu teg loolu dañ ko war a apprivoiser buñ ñu gis comme antagonisme. comme maanaam dañoo war a nekk face à face dañoo war a nekk côte à loolu moo tax terme boobu am importance son waaw léegi ñu xam ne boobu combat suñ ko ñoom suñu ci fekk see parce que loo gis rek day am ñu ci ànd am ñu réfractaire on mm. est d'accord mm-hmm. léegi ñoom ñu ci fekk see du ñun kese ñoo ciy gagné ñun dañ ciy gagné góor ñi gagné ci te ñun ñëpp suñ ci gagné société bi mooy gagné et à l'échelle plus large le continent. Hmm. parce que mënoo jël kii nga xamante ne dañu ne mooy 50 pour cent de l'humanité hmm. wala 51 pour cent. Hmm. suñuy wax ci dans le global nga daal di jël kooku daal di koy nëbb jant bi bëgg àddina bi avancé gis nga société yi avancé yëpp ci àddina bi biñ ko bëggee. mais rapport rapport ANSD bi nee na góor ñi léegi ñoo ëpp de. man d' accord uma ci rapport bi xam nga lu tax rapport boobu kay ci man. Ah, je parle à mon échelle personnelle. Ah, man sama kër. rapport boobu man fi ma dëkk je suis là-bas j'ai des jumelles sama nièce ak sama cousine ah mais ñun kenn mosul fëgg suñu kër ñëw recensé ñu. donc ñun manqué nañu muy yow muy man muy keneen voilà ñun manqué nañu. <laughs> xaw ma madame Diop ndax moom elle a été recensée xam nga donc ñun ñooñu ñëpp dañoo waroon bokk ci décompte bi donc ñoom seen comptage bi pour man yaa yaa yaa un problème am na lu man loolu moom d'accord ma ci parce que man kenn compté wu sama ay jumelle compté wuñu madame Diop ak ñeneen ak ñeneen